si nañ dem vers l'investigation est-ce que homme politique yi xam ne ñoo aspiré à nous nañu dem vers l'information ñii la ñu war a waxtaane hmm. dañu war a xam enjeu yi war a xam di ne donc yu mel nii kenn mënu ci yóbbu fenn parce que c'est rigoureusement exact léegi coowu maître Moussa Diop bi tournure bi mu jël visiblement mooy ci kawam lañ nar dal parce que ñu ngi koy toppee euh, propos de nature à discréditer les institutions ak diffusion de fausses nouvelles yow ban taxawaay nga ci nar a am est-ce que da ngay ñëw en renfort wala euh, dangay ngay bàyyi yoon def liggéeyam. non pourtant tontu naa la ci de euh, damay ñëw en renfort ça veut dire euh, damay porter le débat public sur la gouvernance de nos ressources naturelles xamal sénégalais yi ni su Aly Ngouille Ndiaye Mimran am na benn permis phosphate à am na aussi permis or c'est que Diagne Ndiaye bi maître Moussa euh, Diop tudd mhm. ministre conseiller la à la présidence mhm. te moom mooy bras droit bi nga daa am banque CBAO kon ñooñu tey c'est des initiés au cœur de la présidence yu am ay titres miniers di ko exploiter mais naka le contractant mën a nekk ministre conseiller à la présidence kooku débat la bu ñuy porter sur la place publique euh, société bi ñu bi ñu bi ñu jox permis de recherche jamono ci superficie boo xam ne moo ëpp région de Dakar mais loolu aussi sama contribution mooy ma gëstu ko ba mu leer ba xam ñu nekk ci gannaaw kon fi mu nekk nii man commencé naa jóg naa parce que sànq laa jóge ci benn communication euh, ci ci ci sujet bi te euh, su ma fekkoon Dakar jamono ji kon dama doon def conférence de presse mais maa ngi rëcc li ma sore Dakar il ma am ay contraintes. Hmm. mais xam naa yàgg ay fan néew man dinaa ñëw euh, indi sama contribution de façon beaucoup plus active. Hmm. Euh, ci débat bi sur la gouvernance de nos ressources naturelles parce que article vingt cinq bu constitution hmm. waxul rek ni les ressources naturelles appartiennent au peuple kooku bëgg naa ngeen jukki ko tegal ko internaute parce que deuxième paragraphe de 2016 depuis le référendum de dañ koy faral di occulter dafa ñu ressource yooyu dañ ko war a jëfandikoo ci njëriñu askan bi te dañ ko war a gérer dans la plus grande transparence constitution moo ne suñu ressource naturelle yooyu dañ koy war a gérer ci intérêt askan bi njëriñam dafa war a jëm ci askan bi mm-hmm. ba noppi dañ ko war a gérer dans la plus grande transparence amul luñ ci war a lax léegi nag dégg ngeen démb SOMISEN société des mines Sénégal def conférence de presse directeur am ni euh, permis de recherche yoonu président newu ci ministre moo koy signé foofu mu ngi couvrir président de la république c'est vrai mais le ministre chaque semaine day rendre compte en conseil des ministres au premier ministre au président de la république mm-hmm. il nous donne paraphe de toutes les décisions qu'il prend donc permis de recherche ministre moo koy signé loolu dégagé wul responsabilité président de la république. bien sûr dégagé wul responsabilité ministre des finances. dégagé wul responsable premier ministre. parce que premier ministre ministre des ak président de la république. amul dara luy xew ci réew mi te te te jaarul seen loxo. c'est impossible. ministère des finances ministère bu transversal la. foofu maa ngi def allusion à Amadou Ba. qui a été ministre des finances tout ce temps là. donc qui a paraphé tous les contrats miniers et pétroliers. donc euh, moom il a été presque inamovible à ce poste ba muy nekk affaires étrangères ci premier ministre donc combat bi ci lañu nekk nii ci laay wax ñuy tey parce que bu dul woon mu Moussa Diop tey du ngeen dégg ci sama kàddu ni Mimran moom moom le cinquième de l'ordre du Sénégal et c'est vrai que il est dans une mine de phosphate à Bambey nekk ci actionnaire à vingt pour cent c'est aussi vrai am na permis d'exploitation de zircon c'est aussi vrai donc léegi au moment où on parle de diamant est-ce que moom am na permis de recherche de diamant wala d'exploitation de diamant c'est ça la question donc li ñuy toppee maître Moussa Diop mooy l'authenticité de ces documents d'accord donc loolu euh, mu ngi suñu kanam parce que le dossier ne vient que de commencer d'accord euh, kenn instruire gu ko kenn posé ko question xamaguñu fu mais acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit fonctionnement kooku délit politique la mhm. kooku article quatre-vingt la kooku yàgg nañ ma ko gàll mhm. kooku fourre-tout la kooku fourre-tout ci la offense au chef de l'État nekk ak yëpp mhm. <laughs> voilà ci te voilà c'est un ensemble de dispositifs mooy article quatre-vingt ak lépp lépp lépp ci ànd voilà voilà donc loolu ñoom mënoon nañu yem ci diffusion de fausses nouvelles ñu xool ndax li mu teg ci table bi lu wér la wala lu wérul la mais bu ñu ci mboolee acte et manœuvre de nature à gérer le sur les institutions ça veut dire qu'on qu'on veut le retenir politiquement. kaso la gën a jege retenir mooy téye ci mhm. mooy ñu def ko euh, liberté provisoire wala contrôle judiciaire. Mhm. voilà c'est tout. Jérôme peut-être une dernière question wala ñuy bàyyi Clédor mu libéré wu tuuti man bëggoon aussi ñu ñu des ci ba léegi ci ci kaw maître Moussa Diop parce que gis nañ depuis bu mu yëkkatee kàddu yooyu noonu benn. du ma wax aura médiatique mais euh, ni nga xamante ni noonu lañ koy euh, mambey di wax turam di est-ce que am na ñoo xamante ni ñu jël problème bi gën ko yóbbu ci wàllum politique sax que que révélation yi nga xamante ni moom la def di ci Aliou Ndiaye ak président. waaw retour bi nag euh, xaw na sooxe trop est-ce que man duma leen woo sax. Mm-hmm. parce ma woo est-ce que du gën a baax. ah wala wala régie régie ñu ñu ñu ñu bàyyi ko. woo waaw léegi li ma comprendre ci question bi mooy Me Moussa Diop depuis mu def intervention bi. Euh, dafa dafa fës dafa am buzz en fait mm-hmm, mm-hmm. c'est vrai parce que on parle de diamant li mu wax tam pour la première fois eh. ñu teg ci place publique bi mm-hmm. euh, mbirum diamant loolu ba léegi ni <laughs> am na ñoo xam ne gëmuñu ni jaman am na Sénégal ah, man ma ne mosuma ko dégg ba léegi gëmuñu ko même euh, le directeur de SOMISEN jéem na raxas ci xelu nit ñi ñu jamaa amu fi parce que nee xeer bi am jamaa sax amul Sénégal waaye nee na euh, il y a longtemps ay tubaab for nañu ay jamaa euh, dans dans dans la Falémé xam nga dafa waroo <laughs> nee na nee na jamaa xaw ma ndax déglu ngeen ko euh, ñu ngi fekk à deux cent kilomètres de profondeur deux cent kilomètres mooy Dakar Kaolack Dakar Kaolack manqué na sax deux cent kilomètres mais nañ ko nattee noonu rek. Mhm. ci xóotaay loolu kan moo koy. lu ñu ay géologue gaa mais xam nañu lan mooy jamaa alluvionnaire. ak diamant boo xam dañ koy creuser ci mine boo demee Botswana les mines de diamant sont la c'est pas à deux cent kilomètres de profondeur donc euh, loolu du du lu ñu war a wax ñun deux cent kilomètres la wax de profondeur dans la croûte terrestre ban instrument moo mën a àggee foofu <laughs> ak chaleur bi am au euh, profondeur là non yooyu vraiment pour dindi ci suñu xel rek ni mhm. euh, diamant amul Sénégal mais diamant bu amul Sénégal lu ñu délivrer ay permis direction de mines dafa am benn recueil des ressources minières benn catalogue des ressources minières bépp journaliste wala citoyen bu dem direction des mines dañ la koy jox gratuitement xaw ndax mu ngi ci internet bi am déet ci répertoire boobu wax nañu ni zone Wassangara ak Kéniaba dafa am diamant jama alluvionnaire mooy jama buy nekk ci ndox mhm. loolu lu wér la ba nit ñu koy jaral ñu koy jox six cent douze kilomètres carrés xaw ma six cent quatorze kilomètres carrés pour mu def recherche jama ci périmètre bu tollu noonu donc loolu mënuñu ko dindi suñu xel lu am la donc euh, débat bi dafa war a jublu ci lan moo tax Me Moussa Diop wax ñuy def communiqué Aly Ngouille Ndiaye def communiqué procureur autosaisir dafa gaaw donc état bi yëngu na donc lii moo tax euh, euh, Maître Moussa Diop turam jóg mu am buzz parce que il a secoué la république le procureur de la république le ministère des mines ministère des mines man man ñaata communication laa fi def mosuma dégg ñu def communiqué wala démenti SOMISEN da xamuñu woon sax existence am ñu bëri xamuñu existence SOMISEN secteur des Sénégal donc fi mu nekk nii ñoom ñëpp jóg nañu pour dindi ci xelu nit ñi li ci Moussa Diop def man sama combat mooy Diagne Ndiaye place am nekkul biir présidence en tant que ministre conseiller et bras droit d'une société minière. Mimran mhm. Mining il est il fait partie du groupe Mimran il fait partie du groupe CBAO c'est une banque au cœur de la présidence une mine au cœur de la présidence loolu c'est à dénoncer mu mun dafa am ay permis ay titre minier la am kon bras droit am warul nekk ministre conseiller au cœur de la présidence di langue président Macky Sall loolu du yoon loolu lan lay indi jalgati lay indi koo xam ni dafay liggéey tali mu nekk en plein développement d'infrastructure mm. mais warul nekk ministre conseiller ci wetu président la république muy baarataal koo xam ne dafay jëngu ci pétrole am ay intérêt saar un peu partout mais warul nekk au cœur de la présidence comme ministre conseiller mm-hmm. ay homme d'affaires waruñu nekk ay ministre conseiller ñooñu soxlawuñu oto ak cinq millions ils ont des milliers de personnels des entreprises ay milliards yore seen banque bopp pour la plupart comme mm-hmm. comme Baba am na banque am Oussard de banque mu ngi nekk avenir um Diagne Ndiaye CBAO nee naa la société minière yëpp seen banque Coris Coris banque la ak BDK société minière ak société ak gazière yëpp Coris banque la ñu am la am compte Coris banque moo fi mujjee ci banque yi te moo fi ëpp agence partout Sénégal fu ngeen dem seen koñ te xëy na am na Coris banque alors loolu ñu ñu war a dénoncer la mm-hmm. te le combat en train de commencer man euh, amoon naa renfort en en maître en maître Diop mais je crois que d'autres Sénégalais sachant ñi nga xam ni xam nañu liy daw dañuy oser génn contribuer ci débat bi nga xam ni man nag dañu jot na ci ñu wéttali ma ci jot na sénégalais yi ŋàbb ko jot nañu dem vers l'information parce que ay sénégalais wallahi bu ngeen xamoon seen niveau de responsabilité gis nga directrice su Cosmos c'est une sénégalaise c'est une sénégalaise gis nga société minière bi exploité diamant boobu euh, bi Maître Moussa Diop tudd sénégalaise moo fa occupé poste de direction Aïssata Mbaye ingénieur la ële lilto benn société israélienne boo xam ne daf fi amoon permis permi euh, pétrole ci cadre mi bokk na ci une sénégalaise Aïssatou jàll toujours encore des femmes de valeureuses femmes ñu ngi dans de mines et le pétrole plus des hommes nga xam ne entreprise yi nga xam ne ñoo ñëw fii di ñu nekk di jël suñu alal di ko yóbbu ay cadres sénégalais ñoo nekk ci bopp bi. ay anciens haute trahison mais loolu c'est de la haute trahison c'est c'est c'est c'est c'est un manque de nationalisme ñoom ñooy nëbb information yi ñoom ñooy plomber information yi man bi ma demee euh, euh, Gajaga. avant muy tàkk avant gaz bi di tàkk mhm. njëkk naa fa dem di def euh, investigation bi ñëwee pour une deuxième fois mais travailleurs yi nekk foofu ay sénégalais ñoo ma dénoncé ñoo ma doon tëjël ay bunt te pourtant man seen intérêt laa doon défendre ils m'ont pris comme un ennemi nan mhm. kii moom moo ñu weer moom moo def lii kii mooy Clédor nangam sàngam xam nga comme si c'était la diable mhm. alors que suñu patrimoine laay li jëm ci ay sénégalais ñoo nekk ay rig manager maanaam responsable de tête de puits assorté ça te suñu wax ni Sénégal ñu ngi fi exporté gaz sur les plateformes Woodside GTA et tout mais y a des Sénégalais qui travaillent là ay ay ay ay Sénégalais nga fa mais pourquoi ñoom buñ ñu wax li xew foofu wala ku ñu wax lu xew foofu ñu jël la def la noonu buñ la mënee rey sax rey la buñ la mënee tëj tëj la c'est pas normal il faut que ñu am des sénégalais nationalistes yu jiital intérêt Sénégal